jërë jëf mbokku internet yu bii pro ñu ngi leen di nuyu mbokk yi di leen jaar mbokk yi ñu am mbégte ak kontaan te waat ak yéen dellusiwaat rek suñu bisu xarit suñu jigéen hmm, daaro ngeen xam ko série boobu di biddiw ci koor gi euh, mu ciy def lu am solo mais xam naa daaro bu dina ma neex ngeen di gën a xam nu ko waxee rek ci ngénte tey di bisu mbégte di bisu bànneex ah doom ji yàlla na dund am ndey ak baay artistes yi comédienne yëpp ak comédiens yi ñu ngi fi ndax moom noonu la mel bu ñëpp danañ ko ñëwal waaye nag sama jigéen sama xarit ngeen jàkkaar lool ki nga xam ne mooy toj 2STV yi loolu la yàlla dogal benn Bella ci loo ne sant sëñ Touba gërëm yàlla suñu borom ba ma defee taalibeb sëñ Touba di nuyu ñëpp ku ci nekk ci sa tur ak sant sa sant di la wax sant ak ñeel na leen di nuyu nag sama waa dëkk ndax loo gis am jàppal ma diw man nu ma ko dugg di Thiès laay fanaan waaw di nuyu ci waa Thiès bu baax a baax di nuyu diaspora bi di nuyu suñu soppe yëpp parce que nit ki amul lu ko ko sopp mhm. ko waxee ci présentation bi nga del si tey sa bisu xarit daaro ngeen seq lu bari bokk aar bi mais ngeen seq lu bari. waaw tudd nga xale bu baax nag daaro Daro sama rakk la Daro mosuma fàttaliku fu mu jaaree ci sama tur ma fàttaliku loolu magu jàmbur rek la may woowee magu jàmbur rek la may woowe bi muy door a génn ñëpp dañ doon wax xanaa kii rakku belaa la ñëpp ñëpp wax xanaa kii rakku rakku la ma kontaanoon ci torop nag mu nekk xale bu ma sopp ma sopp ko euh, mu bëgg ma ma bëgg ko parce que dafa am yu ñu xaw a nuróole ñun ñaar moo tax ma sopp ko mooy def na carrière ba fii mi ngi cartonné kenn mësu koo dégg ci daray noofense kenn mësu koo dégg ci daray ñàkk fayda mu bëgg yaayam bëgg njaboot ba tey maak moom ñu nuróole ko ma dem seen kër kër yaayam Pikine seeti ji ko ay magam def ci moom seede yu rafet te man xale bi su mel noonu danga may neex parce que nit ki amul ku ëpp waajuram ndax man sama waajur damaa ñor man bëgguma ku dul sama yaay ku dul sama yaay sama yaay ma ko gënal ak sama rakk yi sama mag yi man ñooñu laa bëgg laataa may bëgg kenn kon donc bu fekkee nit bu mel noonu la ba pare di évoluer ci ci ci milieu bi def na fi lu ne daar dina ma neex lu waay waxadi waxadi su gisee nen ne nena gi euh, dina ma neex def na lu ne fii Sénégal marqué nañ seen empreinte bokk nañ ci rang bi mu nekkoon nit koo xamante ne nii bokk na ci nit ñi nga xamante ne nii moo taxoon ñu seetaan dina ma neex te boobu ba léegi mi ngi téye carrière am lu lu jafe ci artiste lu jafe ci artiste parce que artiste dañu baaxoo di xew tey un an ñu cartonné après ñu ne xewi nañu mais mais moom dafa ba ba léegi daaroo fu mu génnee loxo jëm gémmi ñëpp ni tey macha allah mu mën li muy def ba pare am yar am respect respecté ay magam euh, loolu laa ko loolu loolu laa ko Bella ci wàllu sëy yi sa rakk yi sa mag yi képp koo xam ne yàlla dogal na ngay sëy rek ci Sénégal nu gis des fois ni muy yëngoo coow li ni ci baree léeg-léeg yenn yi du yàgg boo amoon conseil booy jox sa mbokk jigéen yi donte du gogoo ci lan lay doon. waaw Bour Gueweul ñun dañoo siiw rek moo tax ñu ñu joxañ baaraamu tuuma ñoo siiw nag nangu nañ ko moo tax ñu ñu joxaan baaraamu tuuma mais artistes yi sëy di tas dañoo siiw ñu di ko wane. mais sëy euh, sëy dafa mel ni bakkan rek te bakkan waru daal la fa muy daggee dafa lay ne sëy bu yàlla jeexal mu jeex sëy bu yàlla jeexal mu jeex mais ginnaaw nag ñun ñoo baaxoo ci génn ci télé bi àdduna bépp duñu gis suñu dara mënta làqu moo tax bu jeexee ñun ñëpp ñu jiiñ ñu ko mais ñu ne ci bureau yaa ngi tas ñu ne ci kër yaa ngi tas ñiy liggéey leneen a ngi tas couturière yaa ngi tas ñëpp a ngi tas waaye ginnaaw ñun lañ joxañ baaraamu tuuma ah ñu ko ñu nangu ko rek mais mais yàlla mi takk sëy moo ni sëy dagan na fase dagan na waaw sëy bu tas rek que jigéen ji nga xamante ni dafa bàyyi góor ñu bari choisir benn góor dugg ca soit mu am ca doom wala mu bàyyi ñëpp woon ñëpp ginnaaw dugg ko bu sañoon toog fa bu sañoon la muy jeex ca ëtt boobu mu gis ko waaw bu bu yàlla dogalul nag bu yàlla nee waaw nga bëgg na déet ci déet ngay dee mais souvent leen di balaa balaamee day bari trop du yàgg muy artistes yi mois trois mois am na buñ ci gis barki démb ñu ngi ciy déggaat coow xam na amuñu xamuñu amuñu. Eh, ginnaaw dara safu la kan la. <laughs> Nabou Dash. Nabou Dash xam nga sénégalais yi non sénégalais yi yéen Nabou rek a baax ci yéen parce que comme que yéen lu am importance doo leen ci wax li amul importance ngeen bëgg di ci wax Nabou di fawee seen xel yi tey mu génn jëkkëram lii suba mu génn keelee suma mu génn keelee. moom nabu moo baax ci yéen genre nabu gi ginnaaw moom ñoo baax ci yéen ginnaaw yéen da ngeen a bëgg kaa bëgg ay lijjanti bëgg ay toppee bëgg lii nan la demee moom heure bu yeewoo di leen indil kaa donte bu dul dëgg ci moom mu leen di indil kaa ngeen topp ci ngal ngale ngal ngale ba moom mu ne ca la mu ne di liggéey di avancé nabu waaw dëgg la nabu quelle que soit la situation ak lu mu mënti mel mi ngi liggéey su xëyee même buy def vidéo day toog di liggéey liggéeyam di leen defal ay vidéo ngeen xëy di ko kaas booba ngoon jot au lieu que ngeen liggéey dem defi mu def déedéet da ngeen di topp nabu ñi naan wéru ñi naan wéru na nabu naan tas naa suba mbergaan est-ce na dof du mel ni nabu dof du liggéey dëkk ci kër gu baax am kër gu baax teral ndayam ah dof ah dof bu mel ni nabu kon ah, ah dof du mel ni nabu de damay ragal ni ñun ñu koy topp di kaa ci nabu ñun ñoo def mais nabu moom mi ngi ci yoonam di dem mais ñëw ci mi ngi ci yoonam di dem xaw ma ko nag mais mi ngi ci yoonam di dem di dem yoonam de ah. après mu jël seen temps yëpp bu xëy xëyee leen sànni ay vidéo ngeen di wax moom mu takk ndigam di liggéey di teral ndayam yaa ma ko wax barki démb waaw. mais ma ñëw ci benn vidéo bala moo bala ñoo bàyyi demb gi barki demb fan yi ci semaine bi gis nañ muy circuler ci internet bi. en tant que artiste comédienne sa mbokk artiste muy Soumboulou. def na benn vidéo di ci wax ak njiitu réew mi ne dëkk bi li fi nekk dafa seer mu nekk lu dëgg nag ndax ñu ñëpp ay borom kër lañ te dañuy joxe dépasse xam li nekk ci marché bi. mais ñu bari interprété ko noo xam ne peut-être que vidéo bi manoon na bañ a àgg foofu. xam nga Sénégal mooy dëkk bu naqaree waxee te neex a deewee dafa naqaree waxee mais dafa neex a deewee ndax gis nga ñi di la critiquer booy dund. soo deewoon tey ñoo lay defar rib naan ak ak rafetoon jikko moo tax ma la dafa neex a deewee mais Soumboulou man seetaan naa vidéo boobu Soumboulou wax dëgg yàlla man gëj nañoo gisee sama rakk la nag sama xarit la mais gëj nañoo gisee parce que sëy bu duggee nga bëgg a sëy da ngay toog sa kër ta loolu la def wax dëgg yàlla. mais li mu wax aayul li mu wax ku ne mën na koo wax dund gi cher na mais Soumboulou porte de voix la ci doomu réew mi la nit ñi dañ koy déglu mu am ay soppe am na droit dund gi metti dund gi seer suñu yaay yi sonn ñun ñu sonn mu toog ñaan njiitu réew mi sa njaboot lañu ñun sa ay doom lañu wàññil ceeb wàññil dëwliñ wàññil saabu wàññil suukar ndax njaboot ku ko wàññil loolu bégal nga ko mais sumul dafa amul droit loolu def loolu mais dafa am nit ñoo xam ne suñ la bëggee xas buñ la déggalul lañ la xasee noo def ñu fental la mbaa ñu créé la mel ni kuy fentu way mais man xam nga kan laa fan ki nga xamante ni koy yàq lu mel ni xamee bis bu ne muy xëy di avancé di dem yoonam di la bàyyi ci ginnaaw oto bu jiitu la ñuy corné waaw oto bu jiitu la ñuy corné. kontaan naa maa gën a kontaan ci yow. li ma li ma li ma sañse. waa xam nga ñun. lii eh, kii yee ma ko ñawal ndeysaan ñawal ma ko génne maam Thierno maam Thierno borom marché Zeng maam Thierno wax dëgg yàlla eh, borom complexe Thierno Diouf Lambaye muy ku baax di ma gunge nag ci 2S eh, Abdou Aziz boole maa moom. tisi lu mu cher cher mu daggal ma ñawal ma ma sol ni ma demal ca télé ba nga liggéey ndax li ñuy liggéey dafa metti li ñuy liggéey dafa metti bis bu ne ñu bëgg a sol pour bëggal nit ñi yére yooyu ñu koo jënd kon ku ñu ciy gunge rek wax dëgg yàlla euh, yaa ñuy sagal maam na moom kenn du moom donc. mais sa relation bi ngay nëbb doo ko. ay waay ndaw mère bu am relation man mi ci am na ne yéenay génn hélas. ku hélas. xanaa artiste bees la walla lan la artiste bees. artiste bu bees na premier cadeau. ah mun naam damay waaj a am ma ci internet bi su ma waxee waxu sëy ñun ma wutil jëkkër xëy na yàlla a ñëw maa la. yàlla na yàlla ñëw. ah. suñu relation bi def na 6 mois. yaa ngi a ñàkk jom 6 mois ci kuy wër jëkkër boo amoon jom takk nga ma ko. yaa dama paree ko. ah 6 mois 6 mois ci kuy wër jëkkër boo amoon jom takk wax dëgg yàlla dañu waxante dëgg yàlla ñëw nag yéene nan la. yàlla bu jotee yomb. yàlla gën a gaaw lu jot yomb. moom man nit ñi dama leen a faale ñiy wax ni di commentaire ñooy ay ñooñ ñooñu léegi nga bëgg ma faale commentaire non ñooñu samay fans lañu parce que xamul tax ma samay fans lañu xam nga man tàmmuma di euh, di lire commentaire ñu may xas tàmmuma ko moo la su ma gisee du ma mett daf may jaaxal parce que tàmmuma ko comprendre nga mais euh, dafa am lu ndaw lu ma si bëggoon wax gis nga benn sëriñ dañu mës a invité këram ñu dem ñun ñëpp waa jànqeen muy wax ci waxu xeesal ñu bàyyi xeesal quoi xeesal baaxul sëriñ bu mag la ci réew mi jabaram génn di ñu taajal añ xeesal ba weex ñu ñëpp ñu xoolandoo jabar ji mu ni bu leen xool ci li xew ci sama kër xool leen ci li yàlla tere ma di leen ko diggal ngir bëgg ngeen texe gis nga nit ki su la dee wax doo xool li muy dund da ngay xool lim lay wax nga jël lala ca jariñ nga yokku ca comprendre nga mais Bella amul jëkkër taxul mu dof Bella ndeyam dafa sëy sëyal baayam ba baayam làqu Bella dëkk ak ay jabaru càmmiñam ci biir kër xam li ñuy dund Bella lan moo ko ëmb ci sëy tëjal néeg bi ak lafay xew moo ko ëmb ci sëy mais Bella lu mu la wax ci sëy gis li may wax ci sëy mën naa koo wax jeg sëy ba catlu te du tegg dara ci li may wax comprendre nga mais ñi may kii ñi may kii di ma wax wutil jëkkër wutil jëkkër amaana ñoom amuñu jëkkër te amaana gën naa leen demin parce que li nday di doyee doom dal na ma muy doom ju màgg diiñ taxaw ndayam teral ndayam te loolu dal na ma kon comprendre nga mais xam nga ñooñu nan laa leen jàppe sama ay fans xam nga sama jàppale sama fans ñoo ma gën a fan xam nga lu tax du ma leen mere parce que dañ maa déglu ba xam li ma wax door a commentaire pour xas ma. nit ki bu la saful doo ko déglu ba xam li muy wax pour commentaire ko dama leen a saf moo tax ma leen di wan ni maa leen gën a bëgg ndax saf naa leen ndax ndax ndax lu ma def ci déglu ko <laughs> bëgg naa leen. mais par